ja mbokk yi xarit yu ñu seetaan benn waxtu jot na xibaaru diggu bëccëg yi li ci gën a fës kàngami parti démocratique sénégalais yi ñuy defeere tey ci kanamu procureur maître Amadou Sall ginnaaw kàddu yi mu yëkkati euh, ca Géejawaay maire bu jidda caaroy kaw di Cheikh Dieng mi ñu njort ne da doon waajal ab sabotage bés bi ñuy joxe verdict procès bu Karim Wade ca goxam bi sax di jidda caaroy kaw ay ñoñam jot nañoo yëglu ne daal bu ñu ko bàyyiwul ni mu gën a gaawee dinañ leen gën a dégg leneen tey ca de justice di procès bu Aïda Ndiong mi ñu tuumaal ne dafa luubal ay koppar ci mbirum produit phytosanitaire yu plan jaxaay ci xibaar yu ñu mujj jot sax euh, procès boobule daal dinañ ko renvoyé des na fa fekk Adia Talla ñetti responsable Y'en a yu ñu tegoon loxo ca Kinshasa dinañu ñibbisi gën kaa sori ëllëg bu ñu sukkandikoo ci kilifay Sénégal Fadel Baro Malal Talla ak Alioune Sané consul bu Sénégal bi fa nekk ne gis na leen te it dara jotu leen mai 2016 bu ñu mayul ci la ñuy amal njiitu réew mi indi itam ay coppite ci code pénal bi ki ko xamle di njiitu réew mi président Macky Sall mi doon dalal tey ji presse étrangère bi nekk fii ci Sénégal gëstu bés bi mi ngi ajuwu ci wàllu koom acte 3 décentralisation ak coppite yu mu indi ci marché yi dinañ ci ànd ak fàttu bindu Konté ci njeexitalu xibaar yi li ci yéenekaay yi mooy ndar képp yi le xibaar laata loolu bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce yi le bokk mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci xibaaru diggu bëccëg gi ni ñu ko junjee maître Amadou Sall ñu war ko defeere ci kanamu procureur binnaaw garde à vue euh, bi ñu amal ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane loole ginnaaw kàddu yi mu yëkkati woon keroog euh, ca Géejawaay moom maître Amadou Sall nag ñu ngi koy xaar euh, jamono ji ca palais de justice ngir rek mu mun a janook procureur bi ca foofu foofule ca palais de justice ñu fekk fa Maymuna Njaay bu dee mu ngi ci ligne bi you. maa ngi lay fay Fatima Ba. may mën a ndax maître Amadou Sall yegsi na foofulee ca palais de justice. Euh, maître Amadou Sall comme ni nga ko waxee yegseegul euh, palais de justice ci xibaar yi ñu jot nag ñu ñuy wax ni euh, mi ngi ci section recherche bu Colobane ba tey mais nag heure bu nekk mën nañ koo indi fi palais de justice mais dara leeragu ci ñu ngi koy saytu di xool fan la xibaar boobu di mujjee mais li ñu mën a jàpp daal mooy ñëwagul xamaguñ nag ban heure la ñenn ñi ko jegee laaj nañ leen mais li ñu xamal mooy ban heure la kon nag mënaguñoo xuus ci xibaar bi. di bu baax a baax moom mi ñu toppal bile xibaar laata euh, xibaar yi di jeex du ñàkk ñu am ci lu ci yees maire bu Djiddah Thiaroye Kaw di Cheikh Dieng moom it démb lañ ko teg loxo ginnaaw bi ñu jorte ni daal da doon waajal ab sabotage ci bés bi nga xamante ne ci li ñuy joxe euh, verdict bu procès bu Karim Wade moom Cheikh Dieng moom it ñu war koo defeere tey ci kanamu procureur bi mu janoog moom waaye fële ca Djiddah Thiaroye Kaw ay ñoñam yëglu nañu ndax ñu ngi woon euh, naqar ne nag ñoom li ñu bëgg moo di ñu bàyyi seen maire bi ni mu gën a gaawee Pape Cheikh Diack mi ngi ci ligne bi Pape Cheikh maa ngi lay maa ngi lay fay soxna Fatima Ba. Pape Cheikh ana lan lañ fa mën a jàpp leneen foofule ca Jidda Jaare kaw. waaw ni nga ko waxee soxna Fatima Ba noonu la ndaw yi Cheikh Dieng nga xam ne moom mooy maire commune Djiddah Thiaroye Kaw ñoo doon daal fësal seen maire comme waxee ci buntu commissariat bu Géejawaay loolu daal ngir ñaawlu teg loxo gi ñu teg loxo seen leader politique ci fàttali daal lu waral ñu teg loxo maire commune boobu moo di dañu fekk lu toll ci euh, téeméeri pëno ci liñ ñu xamal ci kuuru mairie ba bu euh, alkaati yi wàccee foofu noonu ndax dañ fa wàcc parce que dañu njortu ko maire bi nga xam ne moom membre PDS bëgg taal gox boobu noonu gox gi nga xam ne mooy Djiddah Thiaroye Kaw te PDS daal dafa am doole trop bu e ne Karim Wade daal tëj nañ ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñu jëm nga xam ne mooy bés bi ñu nar a prononcé délibéré bi euh, délibéré wu procès wu kii bi doomu secrétaire général du PDS di Abdoulaye Wade ndaw yooyu nag di ñu xamal Fatima Ba que ne lo noonu noonu dara dara amu fi ndax pëna yooyu noonu lu waral seen teewaay foofu ci suuru mairie bi moo euh, ci cadre benn programme de reboisement la bu seen maire bi décroché ndax docteur Cheikh Dieng ci fàttali environnementaliste la dafa fas yéene woon daal di jëmbat garab yi pneu yooyu daal moo doon tax day day protéger garab yi maanaam day aar garab yi ci mala yi traîner ci xool yi wala xale yi ndaw yi pour ñu bañ a yàq garab yi li ñuy xamal sax que ne policiers yi ne nañ seen liggéey yeggut ndax ba ñu fobee pneu yi yóbbu dañu waroon jëraale garab yi tamit yóbbaale kon daal nee nañ que ne teg loxo yi ñuy teg loxo jamono ji euh, waa PDS yi muy ku ci mel ni maître Amadou Sall wala mbër bi bi bàcc seera sax loolu yëpp ci politique bi xatal gi nga xam ne Pape Cheikh Diack mu mel ne dëgg-dëgg bi dafa xaw am ay jafe-jafe ñu koy koy jaajëfal bu baax baax ni mu ko waxee maire bu jidda caaroy kaw boobulee bi ñu koy jàpp dañoo fekk ay pneu ci otom moom nag ay ñoñam nee nañu ku fonkoon wàllu gàncax la ba tax na pneu yooyu lu taxawoon mu jënd ko moo di ay garab yu ñu bëggoon a jëmbat foofulee ca mairie bu jidda caaroy kaw waaye jàppale ni li koy toppee moom Cheikh Dieng moom it loole it la ñuy toppee Amina Ngiraan waaye tam bàcc Seras ñoom démb ñu amoon retour de parquet dinañ teewaat ci kanamu procureur bi loole nag Thérèse Diouf Faye ne moom bettu ko woon lu mu doon xaar la waa ndawi euh, parti démocratique sénégalais yi doon def rek seen pexe ngir indi rek sabotage bis bi nga xamante ne ci la ñuy joxe verdict procès bu Karim Wade li nu mel nag nee na moom bettu ko benn yoon mu wute lool ak gis-gis bu Toussaint Manga bu UJTL moom nag jàpp na ni nguur gi dafa taxaw temm ngir rek yàq seen parti bi di PDS ñu teewlu ci reportage Salimata Seck ci caméra bi abdu Diouf. jàpp gi ñu jàpp mbër bi di Bathie Seras Thérèse Faye Diouf di xamle ni bett ko benn yoon ndax ay diir ñoom xamle woon nañu el moom di ñu xamal ni lii lépp nguur gee ko tekk ngir jéem leen a xokkatal. loolu yëpp muy stratégie boo xam ne nguur gi da ko def mais loolu dañuy nax seen bopp. parce que tey la ñu gën a engagé wu tey la ñu gën a taxaw te convocation yi ñuy def c'est peine perdue parce que mënul tax ba suñu engagement bu ñu am pour wax Macky Sall ni lu mu nekk def si dëkk bi en matière de justice du yoon. ci lu jëm ci verdict ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñu dëgmal ñaari formation politique di tibbante tànk di xamle ni lu mu laaj rek danañ ko def. procès Karim Wade bi foogoon naa nekk foog naa ne benn procès la rek parmi tant d'autres. léegi s'il y des activités nag politiques. la réponse sera politique. xeex bi du le 23 rek commencement épisode la bu ñu yàlla mais bu ñu jógee ci bureau politique ba. parti bi décidé ku muy def candidat bu nekkee Karim Wade la parti bi décidé Macky Sall na xam ne na leer si boppam ni élection mënu fi am sans Karim jàpp gi ñu jàpp mbër bi nag nekk ca géejawaay di xam ne ni rek boo maywul fi mu toll nii ci wàllum politique xiiro beeg ngaayoo bi dana ëpp rawatina nag ñuy xaarandi liy tukkee ci procès Karim Wade bi ñu dëgmal. Salimata Seck kii moom yoon teggi na ko loxo Mamadou Sey nekkoon DG bu Le Soleil moom nag daal di nañ ko bàyyi ginnaaw ay weer yoo xamante ne def na ko ci kaso bi ñoom nag ñu ngi ko doon tuuma rek ne dafa luubaloon alal mi nga xamante ne ñëpp ko bokk Mamadou Sey jiite woon euh, Le Soleil moom daal di nañ ko bàyyi mu dellu ci ay ñoñam ca palais de justice la ñuy dellu wax ci procès bu Aïda Ndiong sénatrice libérale boobu ñu doon tuumal ne euh, dafa rek daal di luubal koppar mu jëm ci mbirum euh, produit phytosanitaire yi ca plan Jaxaay procès bi sax. ci xibaar yi ñu mujj jot ñu ne daal di nañ ko renvoyé Adia Talla mi ngi ci ligne bi Adia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatima Ba. alors Adia procès bi renvoyé nañ ko wala. waaw bi mooy ñaareelu renvoi bi nga xamante ni mooy affaire Aïda Diong la ki ko def mooy première chambre correctionnelle bi mu daal di jëbal dossier bi rek mooy ñetteelu chambre correctionnelle bi muy la nga xamante ni nag avocat yi di layal Aïda Diong ak ñooñu ak ñoom Abdou Aziz Diop mu ñu koy rafetlu kii di maître Mbaye Jacques Diop nag nee nañu xam nga mosoon nañu déposer li nga xamante ni mooy demande de liberté provisoire première fois ñu rejeté leen nee nañu nag bii pas doo ci déposé ci benn demande de liberté provisoire li ñuy def rek mooy défendre seen i dossier ba muy jeexee te ñoom nag ñoo nañu dañu am confiance ci seen i dossier ndaxte amul dara lu ñu mën a toppee kii di Aïda Diong ak ñooñu li ñu mën a nemmeeku nag Fatima mooy tey si suba si biir palais de justice takk der yi bëri woon nañ fa lool li nga xamante ni mooy dispositif sécuritaire bi xaw nañ ko yokk ak fouille corporelle yi tamit nekkoon li nga xamante ne dafa taxateem bi li nga xamante ni nag mooy euh, askan bi fa teewoon ci biir salle 3 bu palais de justice mooy ay sympathisants ak ñi nga xamante ne ay jegeñaale kii di Aïda Diong Aïda jong nag tey jii dafa teew ci tribunal bi euh, ak air bi nga xamante ne air bu serein la muy nekk di jàmm sant ak nit ñi ak di waxtaan ak ki nga xamante ni mooy garde pénitentiaire bi ko doon indi donc daal li ñu fi nemmeeku daal mooy que ni procès bi dinañ ko renvoyer ba le vingt six mars bii di ñëw Fatima Ba. 26 mars incha allah adiya taala ñu koy jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci leneen njiitu réew mi président Macky ne bu ñu mayul ci weeru mai atum 2016 ci la ñuy amal référendum bi nga xamante ne dina tax ñu wàññi mandaam bi ñu yóbbu ko ci juróomi at waaye itam indi ay coppite ci code euh, pénal bi loolee dinañ ci dikkaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ak yeneen reportage yu koy gën a yaatal ñetti responsable yu mouvement Y'en a marre yi dinañu ñibbisi euh, gën kaa sori ni ki ëllëg Fadel Baro Malal Alioune euh, Sané ñoom ñu téye woon leen ca Kinshasa ñu ne nag dina ñibbisi bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi euh, Sénégal euh, ñu ne nag consul bu Sénégal bi nekk foofu foofule ca Kinshasa mu ne gis na leen dara jotu leen kilifa bu Y'en mi ngi ci ligne bi kilifa maa lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Eh, kilifa ndax autorité sénégalaise yi woo nañ leen àddu ci mbir moomu le waaw ñu ngi nuyu mbokk téléspectateur yëpp quoi. démb la ñu tek euh, en contact ak autorité sénégalaise yi gis nañu le président de l' assemblée nationale ci titre deuxième personnalité de l' état ci euh, titre président assemblée nationale ak ci titre en tant que ex médiateur euh, sur la crise congolaise en 2003 gis nañ ko jox nañ ko toutes les informations ñu commencé def des démarches diploma diplomatiques donc yëf yaa ngi avancé ba le ministre aussi de l'intérieur de de de de des affaires étrangères Mankeur Ndiaye wax na ni nda ñu toogal Sénégal ci euh, côté boobu gisante nañu ak sunu gars yi ñu téye foofu muy Fadel Malal ak Alim Sané gisante nañu ñoom ñu leen yóbbu ci benn barab ñu ngi nekk au septième étage yóbbul nañ leen lu ñu lekk euh, gisante nañu ak ñoom. war nañ gisewaat ak ñoom tey donc bu ci yàlla àndee nañ leen bàyyi tey wala ëllëg mooy euh, euh, dernière information yi nga xamante ni moom la ñu mujj a jot donc di dalal encore euh, famille ñi nga xamante ni ñoom lañ téye foofu di dalal aussi sénégalais yi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngi jaaxle di woote di laaj fu affaire yi toll di dalal seen xel di leen wax ni affaire bii mu ngi avancé bu baax a baax a baax tamit comme dafa nekk mbir moo xamante ni dëkk ak dëkk la du nekk loo xamante ni da ngay ñëw rek mu nekk lu gaaw ak affaire yooyu donc di ñaan yàlla suñu borom mu xëpp ci ndox mu sedd ñu bàyyi leen ñu gaaw dellusiwaat ci seen njaboot. mu ngook mu nekkoon kilifa bu mouvement Y'en a marre ni ki tey wala ëllëg bokk ki nga xamante ne moom moo di Fadel Barro Malal Talla ak Alioune Sané dinañu ñibbisi fii ci euh, ndakaaru ci mouvement Y'en a marre euh, la ñuy des ndax prétexte la ba tax rek ñu daal di gëstu ci yeneen mouvement yi nga xamante ne euh, daf fee mës a am nag moo xam mouvement de jeunesse la wala mouvement citoyen ñu ne nag lu yàgg la fii ci Sénégal daanaka génération bu nekk gis nañ ko ak i xeeti mouvement am waaye dafa mel ne léegi daal réseaux sociaux yi moo tax ñu gën a xam ki nga xamante ni moom moo di professeur euh, Diallo Diop bu RND ak euh, Maguette Thiam bu PIT ñoom ñu ne euh, mouvement yi ni mel amoon na ci seen i jamono waaye kay dafa fekk ni amul woon ampleur bi mu am ni ki tey ñu lu ci reportage Mame Biram Diouf ci caméra bi Malika. yàgg nañu taxaw di bañ di ciy sax teg seen bakkan ndax fekk na la leen yitteel du leen lu dul doxal dëgg. grève cheminot yu doon yu Ibrahima Sarr jiite woon bi nga xam ne juróomi weer ak fukki fan la ñu def. mais Afrique soow jant bépp a ci bokkoon benn saxaar dawatul ngir am lañu doon laaj pexe ya bari woon na bu njëkk ba amoon nañu téléphone balaa téléphone amoon nañu télégraphe am ak ay ndaw yu ñu daan yónnee l'école ya ñu doon jàng yi dooroon na ay bërëb ñu doon dajee di nas seeni pexe bari yeewu woon ci jamono jooju ne daal ni nga xam ne ni la France séqe woon euh, diggante bi ak ñun mënul woy waxtu woowu ndaw yi ci wetu ñi nga xam ne ñoo leen féete mag nekkoon fii yore syndicat yeeg di taxawal parti yu mel ni eh, boobu jamono boobu RDA. ni Y'en si taxawee nag. doon na lu ñu mën a méngalee ak taxawaayu ñaari bañkat Omar Blondin Diop bokk ci. yi jamono yi ñu jàppee Omar li ñu doon xeex mooy euh, doxalinu maa tey ci yorinum réew. Jimé kooku moom euh, c'est un magistrat. mu ñibbee. Eh, moom ak ñi toppoon ci moom ñoom Jacques Baroum ak ñooñu am na fu ñu ci jéem a bund xatale eh, ñu bari ci ñoom. di jëfandikoo lii di internet moo xam jaarale ko ci Twitter Facebook mbala sax Viber di xàccandoo ak di dóorandoo mbala sax jaar fa mag ñu doon jaar waaye la ci am solo mooy xeex bi mouvement yi di amal doon luy dëggu te it ña ca nekk bañ ca xaar dara. maam Biram juuf ca jidda yi kaw la ñu jëm foofulee askan wi amuñu fu ñu sotti seen ndox mu bon mi waral ñenn ñi di ko sotti ci seen foos ci seen biiri kër ñeneen ñi di ko tuur daal euh, ci mbedd mi dem sax léegi nag ba mu indi leen ay jafe-jafe rawatina euh, ci wàllu wér yaram ñu ne nag foofu foofulee amul canalisation lu ñuy sàkku moo di autorité yi euh, gestu leen nu mu gën a gaawee ñu teewlu ci reportage Aminata Mbaare Sow Jibi Diallo Yacine Bay mu ngi dëkk fële ca Jidda Caaroy kaw ci biir këram foos bi nga xam ni moo fa nekkoon daa fees mat na léegi ay weer li nag doon lu metti mais amuma pexe maa ngi def effort nag pour defar ko waaye xañ na dafa jotagul daal waaw ah ah depuis foos baa ngi fi wax dëgg yàlla waaw maa ngi koy bëgg a defar mais doole moo amut. gis nga ma ni moo taxit du ma mun a tëdd nelaw du ma mun dara même su ma génnee dem fenn sax damay xalaat. fii ci commune d' arrondissement bu Djiddah Thiaroye Kaw ñi fa dëkkee dañuy am jafe-jafe ngir tuur seen ndox yi ñuy jëfandikoo ci kër yi mbedd bi la ñuy mujjee tuur ndox yooyu lépp. déedéet amuñu rigol ci tali bi rek la ñuy sotti lu ñu fóotee lu ñu raxas yëpp ci tali bi lañ koy sotti parce que amuñu dara fu ñu koy sotti feneen amuñu rigol ci biir kër gi amul dara. population bi tamit dañu war a def attention parce que waruñu jàpp ndox mi di ko fi tuur te maire bi tamit am na ci part de responsabilité. ndoxu kër yi fii leen koy tuur ci kaw tali bi parce que amuñu ay rigole suñu amoon ay rigole nag ñu di man di si si def ndox mi. Euh, ci ndox yu bon yooyee xale yi dafa faral di foo loolu doon beneen jafe-jafe ci askan wi yeewoo foofee ci Djiddah Thiaroye Kaw. foo ñu fekk ñoo ngi sang ñoo ngi fóot ñoo ngi def lépp parce que ñaari mii yu ñu tilim. boo leen gisee danga nga naan ñi seen yaay toppatoo wuñ leen fekk itam li ñu mun ñoo ngi koy def daal wax dëgg yàlla. ñenn ñi jàpp ne dañoo war a taxawalaat gox googule ñu dugal fa ay plan d'assainissement su ko defee askan wi am ay bërëb fu seen ndox mu bon mi mën a jaar. am Aminata Mbaare Sow ñu ngi ci semaine bi ñu jagleel kàllaamay nasaraan ñu def nag ab tour ci yenn rédaction yi xool correcteurs yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xool papier journaliste yi laata ñuy liir wala bokk di ko bind di si bàyyi xel bu baax a baax xool ndax amul ay faute wala yi ni mel euh, kenn ci ñoom Gaston Coly correcteur la ca waa sport ak Ibrahima jéeme nekk ca l'observateur ñoom nag jàpp na ni képp koo xamante ne da ngay xool papier journaliste yooyu faaw rek nga am benn maîtrise euh, ci français euh, waaye itam nga daal di rek sàmmonteeg code de la presse leneen itam lu ñu jàpp moo di ne ab correcteur correcteur yëpp duñu ay taskatu xibaar ñu teewlu ci reportage bu Pape Fara Ñing Matar Ba nekk ñoo xam ne duñ leen ràññee ci oto taskatu xibaar yi te ñoom nag ñoo nekk ci tàmbali gi ak njeextalu bind bépp journal balaa ñu ko génne seen liggéey nag nekkul lu yomb. correcteur il intervient. journaliste bu liggéey pare jël papier bi daal di koy jox ki nga xam ne moo nekk chef d'édition bi ci nun lay mujj. ñun nag bu ñëwee ci ñun ci la ñuy xool daal di dindi lépp loo xam ne daal jàpp nañ ne jaaduwuñ loolu moo nekk suñu liggéey. donné au correcteur. daf koy jox chef de desk chef de desk bi xool ko jox ñu ko ñun ñu door ko xool. xool génnee euh, ñu ci mën a génnee ñu nit. correcteurs yi nag dañuy faral di jànkonteel ay jafe-jafe maanaam ay textes yu métti jàpp nañ ne niveau journaliste yi dafay gën a wàcc. souvent les mêmes fautes qui reviennent. daa métti méttiwul léeg-léeg day métti léeg-léeg mu mu mu mu yomb. waaw parce que nit ñi du ñuy bind ñeneen ñi euh, dañuy bind bind bu rafet am nañu niveau bu baax waaye nag léegi léeg nga jànkonteel ak texte bi nga xamante ne moom euh, euh, mooy loolu donc da ngay sonn lool lool lool. ñun il faut ñu déglu rajo il faut ñu seetaan télé ñi xam information yi am parce que journaliste bi bu ñuy bind xëy na moom sax mun na ñëw juum fenn fekkee man déglu naa ko ci rajo bi ma dimbale ko ci. ndax correcteur dafa war a doon forcément journaliste. am niveau daal niveau français bu baax nga mën a nekk correcteur. mën a euh, gis xëy na peut-être yeneen euh, erreur yi ñuy def parce que des fois day am ay faute de frappe. naam sax bu dee ci Sénégal amul ab école boo xam ne dañ koo ubbi ngir ay correcteur ñaar ñi moom li ñuy gën a ñaawlu moo nekk ci yenn ëttu taskatu xibaar yi duñu respecté yenn code yi nga xam ne métier bi moom la jàngale. njiital alxaf euh, alxafington post moom nag ab groupe de presse la bu nekk ci ñetti réew yu Maghreb bu ci mel ni Tunisie Algérie ak Maroc ñoom nag euh, xëy nañu tey daal di rek visiter locaux yu télévision Futurs Médias ñu ci jublu moo di xool euh, anam yi ñu liggéeyee fii ci kër gi ndax ñu ne intéressé na leen lool ngir rek xaatim partenariat seen diggante ak groupe Futurs Médias njiit bi nag mu ngi wuyoo ci turu Samia Chérif moom dañuy teewlooy kàddoom ci micro Modou Diop Je suis amie depuis, euh, longtemps avec Youssou déjà, donc je viens... man mii ngeen di gis bi ma dalee di ànd ak Youssou yàgg na loolu Sénégal miin naa ko te fi mu toll nii dafa am benn situ lancement bu may jiite sama grève buy dépendre ci benn groupe américain bu mag bu ñuy wax Huffington Post moom ay dëkk yu ñu jot a lancé te Sénégal nag dafa nekk dëkk bu ma sopp ba tax ne gis naa ne mën nañ fi am benn partenariat ak waa Sénégal fi mu toll nii nag ñu ngi xool di set ndax dina mën a nekk am déet. effectivement si dans l'avenir euh, c'est quelque chose d'envisageable sous la houlette du groupe euh, américain qui devrait être informé de tout ça. xibaar yi biti réew yi dinañ dem ca Mali foofu nag euh, xaatim nañu ab accord de paix ca daal dinañ dem itam ca Égypte foofee lu euh, ci fukk ak ñeenti frères musulmans la ñu daal di condamné à mort euh, ca Syrie nag ak crise bi nga bi nga xamante ne moom moo fa am France ak États-Unis am gis-gis bu wuutee ci naka lañ ci dugalee Bachar al-Assad ñu teewlu ci récit bu Chérif Dia Mali jàpp na ni ndaje mi nga xamante ni moom mooy am tey ca Kidal moom mooy ndajeem dernière chance ngir lekk jàmm daal di dox ci diggante kilifa yi ak mouvement yi nga xamante ñoom ñoo tënku ci wàllu azawad tànk jàmm yooyu nag ña koy dox mooy kuréelu mbootaayu xeet yi daal di ànd ak kilifa yi ngir ñëw ca diwaan ba déglu wante tamit yey ñi nga xamante ni ñooy pàcc bi lànkoon ne ñoom du xaatim këyitu jàmm yi nga xamante ni signé nañ ko ci Alger benn fan ci weeru mars bi ñu génn. ca Égypte la fay coow démb ba léegi moom mooy condamnation à mort bi nga xamante ni tribunal pénal ba teg na ko ci kaw fukk ak ñeenti frères musulmans yi bokk ca ñoom seen njiit di Mouhamed Badi buñ sukkandikoo ci ëttu tasukaayu xabaar yi wante tamit avocat yi frères musulmans yooyu nag buñ sukkandikoo ba léegi ci njiitu waa Égypte jàpp ni sax seen organisation bi organisation terroriste la ba tax na ci atum 2013 ba léegi ñu daal di neenal seeni i yëngu-yëngu jàpp tëj kaso ñi nga xamante ni njort na ni ñoom ñooy njiit ya ba léegi waa njiitu Égypte dañ ne frère musulman yi dañ doon nas ay pexe yoo xamante ni bu sotti woon dañu yee fitna ci réew ma daal di tamit naax saayal nguur ga mu mel ni États-Unis ak France bokkoon gis-gis ca fitna ga am ca Syrie ndax njiitu diplomatie bu États-Unis di jonker yi moom daf ne rek faw ñu dugal njiitu Syrie di Bachar al-Assad ci waxtaan ya ngir ñun gantal pexe yi état islamique loolu nag Laurent Fabius di njiitu diplomatie bu France gisee wut ni ndax jàpp na ni lu di njaak kii di Bachar al Assad moom mooy njaat ba tax na daal xel xalaatul ñu koy dugal ci waxtaan yi nga xamante ni moom mooy indi jàmm foofa. waa États-Unis moom nee nañ proposition boobu bu ñu ko defee li ko waral du lenn dul influence bi nga xamante ni jàpp na ni Bachar al Assad am na ko ca diwaan boobu. tàggat yaram ñu doore ko ko CHAN 2015 entraîneur bu gaynde yu ndaw yi mi ngi janoo jamono ji ak taskatu xibaar yi ca stade Léopold Sédar Senghor moom Joseph Koto nag euh, équipe am bi dina dajeek euh, Mali niki alxamis gi euh, ci demi-finalu CHAN yooyu lee du ñàkk ñu dikkaat ci suñu yeneen jotaay xibaar ñu wax ci huitième de finale retour Ligue des champions tey ji Monaco mooy dalal Arsenal ci match match aller bi nag monégasque yi ñoom ñoo dooroon Arsenal ñetti bal ci benn beneen match bi. dina dox diggante Bayern Leverkusen ak Atlético Madrid nu yegg si nag ci euh, gëstu bés bi. gëstu bés bi mu ngi aju ci wàllu koom ak jafe-jafe yi nga xamante ne acte 3 bu décentralisation indil na ko marché yi euh, daanaka jamono ji xamatuñu fan la ñuy fayee euh, juuti gi muy loo xamante ne nag ñoom ñi ñëkk yëngu ci marché yi wala bokk commerçant yi am nañ ci lu leen metti waaye itam maire yi ak jafe-jafe yi ñu am ci wàllu koppar ngir rek mën a euh, gérer gox yi nga xamante ne moom lañ leen dénk ñu teewlu ci reportage bu fàtte Bintou Conté ci caméra bi Thierno Laurent Mendy ngir collecté juuti jamono ji ci marché yi bi ñu taxawalee acte 3 de la décentralisation ba tey dañ koo def mu organiser wu lool fii ci marché joor bu Parcelles Assainies yi jaaykat yi ña ngay fay bës bu nekk seen i juuti. boo xoolee pratiquement marché bi ñi ci ëpp juuti la ñuy fay d'ailleurs sax loolu moo gënal commerçant yi parce que commerçant yi ñoom seen wàllu bopp xëy suba teel di fay taxi municipal moo leen gënal di fay abonnement. cantine 150 la ñuy fay. table yi ñu ngi fay 75. bi le marché nag am na lu toll ci 500 cantines ak 200 tabliers yoo xam ne chaque jour ki nga xam ne moom mooy juuti bi dafay ñëw di jël si xaalisam. nombre de cantines moom war na dem ay 400 wala 300 cantines daal. 450 daal au maximum actuellement nombre de tables bi ñu fi am ci ci suuf am nañ 150 ci kaw bi ñu am 150 euh, 140 140 muy 268 tonnes au total. ca marché Wakam leneen lañ fay fekk fii nag jaaykat yi weer bu nekk la ñoo fay li nga xam ne moom mooy seen juuti. dañ koo dañ noo luyee suuf si dañoo wax ne Kanding mu ne dañ eh, suuf si di nga fay 4000 weer wu ne loolu commune bu mag bi ñoo koy defoon fii la ko commune yu ndaw fekk ah loolu nag ñaan nan ba tey pour ñu defal na ko juuti waaye nag juuti bi daal eh, comme fii lañ ko fekk. xëy na mënuñu koo mën a dindee noonu daal. am ci kaw deux cent et quelque nekk na ci kaw cent quelque ne na ci kaw ci suuf deux cent et quelque ñu ngi ci suuf waaw. jamono jii gérer marché yi commerçant yi jàpp nañu nii ñoom ñi nga xam ne chaque jour la ñuy fay moo leen gënal ñenn ñi ne déet weer bu ne mooy li nga xam ne mooy permettre ñu gën a mën a collecter seen xaalis. li ci abonnement dafa bari ay risques abonnement mu ne nii boo toogee ba dajale ci ay mois yoo xam ne fayoo ko ay risques am na ci. man naa am man na am boo demee ci njëkkoon am mais léegi nag amatul ndax boo dajalee ay weer weer yooyu ngay toog fayoo ko man na la jural nga dem ba ñàkk kantin bi nga maanaam ñii dañu ne juuti bi moo leen gënal ñii ne moom eh, bàyyi ba weer de ñu fay moo leen gënal daal kenn ku ñu euh, àgg la gën de la décentralisation bañ ko taxawalee ba tey gérer marché yi commune d' arrondissement yi ñoo ko yor gannaaw mairie Dakar ba mu ci génnee loxoom mu di xaalis yoo xam ne dana leen permettre ñoom ñi nga xam ne ñoom ñuy communes yi ñu seen yenn projet yi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci gox ganu ne. Fatou Bintou Konté ñu koy jaajëfal yegsi nañu ci ponk bu mujj bi ci xibaar yi li ci yéenekaay yi la ñu ma ceek Mamadou Mohamed Ndiaye a ngeen jëf enseignement supérieur léegi égal problème inférieur fekk leen ma ci xët mu njëkk la yi fa lay gën a leere gouvernement beeg SAES e déggoo nañu léegi loi cadre bi taxoon ñu mel nay tëx yuy waxtaan léegi déggoo nañu ca Sud Quotidien ñu loolee mooy déggoo gi wàllu université bi mooy li ko xitili ba tàbbiwul ci guuta anki dina kay nañu SAES e syndicat autonome enseignement supérieur suul na sémiñëw defante wi mu gàddu woon jëm ci gorante gouvernement bi observateur xëy laaj mari taw ñaan lu ray pëli manga naaj ñi maanaam déggoo gi am seen digg ak jàngalekat yi ana lan moo ko waral ministre enseignement supérieur leeral ko fo ba mu mel ne sànjaraaki sondeelam li yéene kaay bi Mary Teuw Niane doore waxtaan wi mu séq ak wàllu observateur ci jaajëfal lan ci député yoo xam ne ñoo tax ba yëf yi ant bokk na ci professeur Iba Der Thiam Imam Mbaye Niang Moustapha Diakhaté Omar Sarr Mansour Sy Djamil ak Kati Cissé Wane Mary Teuw Niane ne ñii ñooy ñi ci dox wax ci ba sayes wane ci yéene gouvernement bi ak bëgg moo tax déggoo gi am Walfadjri nañu ca déggoo ga am na ca lool professeur yi doon nañu ko sàkko mujj nañ leen ko defal mu di ca conseil d'administration bi université yi nguur geeg place yi mu doon baaxee professeur yi da leen yokkal docteur yi réew na nañu Abbas Ndaw yàqooti na yëral xët mu njëkk la quotidien docteur Youssou Ndiaye ma jiite woon l'hôpital ba ba ñu ko fa jëlee dañ fa yónni waa inspection des affaires administratives et financier ngir ñu dem xooli na docteur Youssou Ndiaye yore woon kër ga ak la mu fa nekke woon Ali bu la quotidien nañu waaye bi xoolee ba sottal yër bii léeg biti lëj mbët ko luqu mbut ko la gis ba bind ko ci seenub rapport moo di hôpital Abbas Ndaw yàqu juróom-benn yoo xam ne kenn xamul fan la ko na ñu jox ko ko loolee nag ko ba mu set wecc keneen ku ñu la quotidien nañu ma nga ci rapport président président de la république bi fi woon di Abdoulaye Wade ci xët mu njëkk enquête ne kaay juróom-ñaari fan di semaine des ci ñu xam lan la yoon di dogal ci mbiri Karim ñaar fukki fan ak ci weeru mars ca la koy wax yéen bi nañu gars ci Parti démocratique Sénégal jamono ji ñoo ngi ci fitna ne maître Alaaji Amadou Sall jàpp nañu ko démb ca loxo yoon la fanaan bàcci seeraas mbër mi ak Amina Ngiraan bu UCTL yi ñu doon tuumal ne dañ doon teg ay pexe ngir bu yoon tëjee Karim Wade ñu salfaañe dëkk loolee la ñu ko jàppee libération nañu nguur gi caaxaanool daas nañ seelam ba mu ñëw toog di xaar màttante ba Alaaji Amadou Sall section recherche bu Colobane ñoo ko woolu déglu ko foofee fanaan article di offense au chef de l'État bu ñu moytuwul danañu ko ko gàll Le Quotidien ne ko mooy am amu ci sikki sàkk maître Alaaji Amadou Sall kaddu yi mu yëkkati ci Géejawaay ci meeting boo xam ne gars Karim Wade ñoo ko fa doon amal loolee la koy ñoom la ñu jàpp alaaji Amadou Sall la Amina Ngiraan ak Cheikh Dieng maire bu jidde caaray kaw populaire ne ko ëpp na ko juróom benn nit yu fore ci langu wàddeen ñoo am lante ak wàllu yoon alaaji Amadou Sall la Amina Ngiraan Bathie Seras Cheikh Dieng maire bu jidde caaray kaw Serigne Assane Mbacké ak Babacar Mbaye Ngaraaf ne moom it démb yoon déglu na ko gannaaw bi ca la ñu ko bàyyi la Sénégal nañu fi ñu tollu tembe kay képp ku di jege ñaale Karim Wade yaa ngi ci fitna maître alaaji Amadou Sall ak Cheikh Dieng ca kaso bu njaarim la fanaan Le Quotidien mel na ku naan ko ji lay defee cantam Walf Fadjri nañu gi moo jànnaxe di di jàppaate ak di xoqatal ñenn ñi ma nga ca loxoy yoon bàcci seeraas retour nga woon central Assane Mbàkke ñu fëgg ko mandat dépôt jël ko ca kaso bu njaarim direct info nañu nguur gi ak kujje gi ñoo toll ci nappante réew mi Quotidien nañu sameen des ci suñu digg ak bés bi ñuy xam li yoon dogal ci mbirum Karim Wade waaye jàmm jeex na Abdoulaye Wade bàyyi Karim Wade bi ñu démb seeti woon na doom ja ca Rebeuss waaye Wade ba mu génnee amul benn kàddu boobu yëkkati na ko deful benn déclaration déclaration ci sunu lamb mi ngi bawoo ci waa ji di Samir Fawaz spécialiste la ci wàllu sport de combat combat Eumeu Sène Balla la ko waa sunu lamb laaj lu mu ci xam li mu leen tontu moo di bu dee ci wàllu physique Eumeu Sène moo gën a taxaw Balla Gaye Balla Gaye nag li ko ci mën a génnee moo di mën a bëre ma génn ci lamb ji dugg ci l'observateur xooli fa sandarma yi jugtee tuxum yàmba bi gannaaw kawoon ca Thiès observateur nee nañu am na beneen waxati ndax yamba ca caserne Samba Jiri Diallo la nekk. Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu koy jaajëfal yéen it naka noonu ci teewlu bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru diggu bëccëg gi Kebs Thiam moo nekk ker euh, permanence suba ba léegi eh, Kebs maa ngi lay nuyu. maa ngi lay euh, fayati Fatima fi mu nekk nii nag euh, joxe xibaar yi ba mu yem ba pare. Mhm. xam naa ne dañuy wéyal rek ci permanence. wéy ci permanence ak programme yu télévision Futurs Médias ñu ngi leen di ñaanal kenn dalu jàmm di ko sàkku ci yéen.